une bonne mémoire toi d'ailleurs course de vieillard boobu moo tax ma woolu leen tey mais booy course de vieillard bi ñi ko mujjoon def gisuma fi kenn de fii ay yambar ak ay paa laa fi gis alaaji suluxu tëjal sa mi yaa gën a màggeen ñépp jeexal nga bu yàgg mais c'est ça ay passax moo tax ñu tuddee ko course de vieillard loolu dëgg la mais ñii duñu ay paa kese c'est des cadavres ambulants kenn mënu ci daw un kilomètre chef de quartier bii ngay gis xol bi baaxul dafa amee cardiaque kii di Jackson biiru maafe dafa asma il ne peut pas courir. ma femme Dumbe ngir yàlla sóoraaleel kaani gi démb dëxin bi nga toggoon dafa saf sàpp ak kaani c'était pimenté. ah nijaay pourtant saful kaani de. mais bien Dumbe wax naa la man bëgguma kaani je suis sportif. en plus ak course de vieillard bi dama war a lekk lu baax am ay vitamines. ah kon nijaay yow daal li ma lay toggal baaxul. baax na kay mais nga wàññi kaani gi surtout diwlin gu bari gi baaxul ci man. waa baax na nijaay dinaa ci bàyyi xel léegi. te nga bàyyi bouillon yi ak sa safal li ngay def ci ceeb bi loolu dafay fënaxal sama yax yi mais yax sont très nooy léegi à cause de li ngay togg keroog fii la ma xaali yenn ba ci kaw dóor ci suuf. ndumbee ngir yàlla bàyyil dëxin ak mbaxal yu saf yi nga may toggal. dama toggal ay cere ak ay mbaxalu saalum nijaay nag yow man dégg noppi rek xam naa ne course de billard bi préparé moo léegi réer yu simple te léger laa lay defal Ndumbita loolu nga war def cinq millions yi ci kër gi la war a de <laughs> hey mais damay gént wala kii kan la sëñ la hé sa fekkaat hé tahol, taxawal yow laay waxal xaw ma lay def nii lu ma lay woowee paa bu toll ni yow sol kilot bu tamit course de vie ak laay préparé damay entraîné juróomi million du ay foo mën nga ci lu bari xool ak mbaq pib bi mu naan jadi kan yaakaar ngeen gagné course bi taman nekk fi ak sa yi yi kan di mel ya, eh, ni bato la joola alaaji sulugu noppil da nga bëri wax bàyyi ma dem balaa maa seede su ma fendee du baax mag buy entraîné bu ko désinstallé quand même bul dem de taxawal taxawal de sa da kàcce foo jëm ak sa caleçon waa koñ bi kaay leen leen kaay leen sa da bi mbaq la sol eh jàpp leen eh mbaq pib pa pa gars yi Algérie dégg naa match yi ñu mujjee zéro ñoo ñu gagné tey revanche la on est chez ci fay leen naar bu baax. wan leen ma classement bi ma xool Aliou Mbaxal lu mu teg eh dama juum Aliou Cissé El Tactico. eh arbitre bi sifflé na. Sadio de de. le décalage pour Papa oh. Matar le centre Iliman Ndiaye l'amorti pour Sadio Sadio Mané et la parade d'Anthony Mandrea le gardien du stade Malherbe de Caen qui fait. Sadio Sadio del xool bu baax gars yi Sadio je dëkku naari le football de foofu la nek légui. moytu leen mu jaawal leen ak naar algérien passe leen bal bi. Jackson rëcc de Nicolas Jackson demna. oh góol bi tàmpe na ko oh non waay. un mouvement na de. eh Sabaly blessé na yow. Oh. kan moo koy remplacé. eh Krépin Diatta. Krépin kañ nekk latéral. c'est Aliou Mbaxal. gars yi gars yi tiki ngir yàlla. tiki taka leen ngeen dugal am njaay joxal jóob. Tac tac tac tac tac. ana lu ma leen Riyad Mahrez Mahrez qui met ce ballon au second poteau la tête et le but de Farez Chaibi qui surprend la défense sénégalaise après un coup franc très bien exécuté par Riyad Karim Mahrez. Ah oui, tu l'as tu, tu, tu, l'avais dit, tu avais ce pressentiment. gars yi gars Algérie non Algérie suñu bête noir la kon euh, yow. mais l'un dans l'autre la balle arbitre tasal match bi temps bi jeex na suñu égaliser naari dañ naan dañ leen sàcc kon xam naa leen dañuy yàq suñu der dañoo mën a nettali dunga yow tamit ma moom sama kër nga ni ma doo fi dugg may sa jëkkër nga may génneel kuuru roof ah doo tontu xamal ni nag sa jëkkër laa maa lay dugal ajana de xaral ma woo imaam léegi allo. Père dawal moo ngi ñëw de. i woy sama ndey kuuru roof. Attention yow looy def fii xanaa danga dof ma femme est dans la maison. ma fi dul def yow ñu am rendez-vous sànq ba tey ma toog si di la xaar maa ngi woon ci buntu restaurant bi la xaar boobu ba léegi. su ma ñëwul nga xaar ma te xam ne am na lu tax ndumbe laay xaar mu dem ngénte ma ñëw. xam nga lan la suluxu boo ragalee sa jabar dama koy wax ñu xam ko. eh patate chaude léegi suluxu nga may wax. Contubeto mabogos. Oh, mabogos ho. Solo la lesa di Amaralda ne vai enojar. Non, ne dis pas ça, toi aussi, ma patate chaude. Je suis pas un trouillard, ni un e poltron. Dumaragal man. Ni ma la gisee nii de nang may nax nang naan may kak. waaye yow mi nduru woo ma kuy takk bien sûr man yaa ma suqali nekkoon naa paa ba pare yaa tax ya ma nekkaat jeune yaa may génnee di ma yóbbu ay resto di ma ay hamburger ay pizza ay pissa ay pissa kër gi su ma fi nekkee ay mbaxalu saalum laay lekk ak ay dëxin sama jabar xamul lu baax papa dégg naa li nga wax yëpp maa ngi leen wax sama yaay eh Saliou taxaw de waa am cent franc nga dem jënd sif si meew dumbe yow tamit ma moom sama kër nga ni ma doo fi dugg may sa nga may ah doo ma tontu xamal ni nag sa lay dugal ajana de xaral ma imam imaam Halo? allo imam. Imam ya yow waa koñ bi defuñu la imaam pour ngay tëdd di nelaw rek de yow sànq ba tey maa ngi la wax kaay dimbali ma sama kër moo ngi tàq te ñëwoo i nga ni ja nga kon yow defar sëyu xale moo la gënal tas sëyu mag wóor na yàlla imam bi nga nekk rek moo tax ma la mais su dul woon loolu man la defeyaa nga yow góor gi Diop yow defeyaa nga per sulu dawal moo ngi ñëw de i woy sama ndey kuru rof woy sama ndey kuru rof kuru rof rof rof rof rof ndumbitaa tey la togg añ et eh, xoolal bu ñu ma waxati Numbe de sequma koog yow doxaankat bu mag bi. mais Numbe je suis un homme su ma neexee takk ñaareel j'ai droit à quatre femmes. ay eh, dimbali ma yow may ma sama jaam. yow sa dépense su ko sax mënoo ko matal ba yow ñaari jeeg. ah da nga yàq sama der kon loo bëgg a wax foofu du ma joxe dépense. Eh, yow may ma sama jaam man damay dem marché. i dem marché te laajoo ma lu ma bëgg nga togg ko. xoolal. à partir d'aujourd'hui dootuma la laaj lu ñuy togg ndax yow matoo kilifa waa baax na defal lu la neex xaaral ma dem marché man ñëw togg suñu xub bu fatt taxaj i man sama turandoo duma lekk suluxu loolu sa problème la nijaay ñun dañoo namu suluxu tey suluxu bu am pomme de terre ak pataas ak kaani doom bu rouge moom laay togg yow ah ak kaani xeeñ gis nga ndumbe yow su ma yoroon caabi àjjana doo fa dugg <laughs> bonjour alaaji mbuluxu yaa ngi taxaw taxawuma de damay naaw <laughs> alaaji mbuluxu bàyyil tàng xool yow fu ñu la fekk rek Jackson sayon yoon nekku ci sama tàng xool nuyu nga ba pare rombal nga dem sa yoon ok pardon mais hier j'ai entendu dans le quartier Amna na benn paa bu fi jabaram gennel mbolde kan la tu sais qui c'est ça Jackson xaw Deugna ko jabar ji daf ko avec le mbolde elle allait le tuer li lay waxati si wa koñ bi ak sen meuna katch. kàcc du mbolde Kourou rof la comment est-ce que tu as su que c'était un à la du mbaluxu hey mbaluxu dafa mel ni yow la sa jabar tobali ak Kourou rof de